Basumo Basumo Mare su ko noo ko Abidjan Iba Fama leen jaar weeru nite soppi doxalin waxante dëgg lu mu metti metti lu ko jar na ko jar une collation du projet pour les campagne présidentielles On est dans une campagne présidentielle et non dans un combat. coalition Diomaye président fan Rufisque Rufisque Bargny war jàll Diamniadio cinquante hmm? léegi nu yem ci Rufisque coalition Diamniadio à Rufisque à travers le projet ak ni Tëngéej mel Tëngéej bokkoon si ville yu gën a rafet Sénégal ville yu gën a set Sénégal Rufisque comme d'habitude pont boobu ngeen di gis mooy quai de Seine bi tubaab lii la fa bëggoon créer à long terme pont de Seine pour déva pour dégager seen kër yi bu foos yi busee bouché nu muy xeeñee noonu ak salte bi weñi ak pont bu ubbeeku bi ñu fay sànni mbàq yeeg yooyu yëpp tubaab parce que lu ma gisul du ma ci ñeme wax tubaab quai de Seine bii ndox bii ngeen di gis c'est pas naturel ndox bi tubaab ba ko créé def ko fi gis ngeen ay bateau yëpp dañ fiy gaare nekk ay restaurant bateau de loisir ak lépp te ñu ne Tëngéej def nañ fa port bu bees ñu ne Tëngéej def nañ fa port bu bees man j'ai des problèmes kon yéen la coalition jamain certes y a de l'envie xale yaa ngi leen topp di yuxu di tàccu di fecc di foo di ree yee leen xale yi campagne ko ci code campagne ko ci chiffre sept ndax xel deux cent cinquante lay def Tëngéej l'une des villes les plus sales Ismaïla Madior Fall dëkk fa ñu war a changer ñitu Tëngéej ñu andi bourrage d'urne Sénégal di gagner par force dëkk fa muy Papa mbay Jacques Diop te mu décédé moo fi indi bourrage d'urne yor goon tës tës tës ñëw buuree urni nekk député mook abla Diack bu Kaolack ñoom dañ daan gagné par force Tëngéej bi nga xam ne ngay gis association des jeunes ñu am cinquante cinq di jiite association des jeunes nga dem mairie beeg lépp c'est les vieillards qui ont des petits-fils c'est les vieillards qui ont la prostate ñooy jiite la jeunesse de Rufisque Tëngéej dëkk boo xam ne maa la dàq xeex ndam la fa bu ñu fubalee nawetaan ba pare bu ñuy xeex dangay ngay yaakaar ne àdduna dafa tëkki Palestine la ak Gaza te ngeej armée lu jokkul yi boo fay suulu ñit boo lekkee ba suur da ngay wocc te ngeej érosion côtière am na fa géej gi saay mu màbb daw ba ci marché bi ñëw yegg si te ngeej dam leen xool lycée Ablaye Sadji ak école primaire yi naka la mel ak ndax Tëngéej mérité na am port bu bees buy débarquer di embarquer ndax Tëngéej mérité na ko oui ou non malgré que Macky na beneen port mais loolu je m'en bats man Tëngéej laa leen wax ak yéen programme Bassirou Diomaye Faye tey giraas yi dafa wax lu am solo man waa ju ma gëm waa ju ma faawal sama bopp ndax lan code d'honneur am ba pare ma dem Kédougou yéen traînant ndeysaan ñoom très bien maa la ñu nuyu <laughs> les six sala léegi ñu ñëpp ay maire lañ parce que inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Yacine Yacine Sall Guédiawaye décédé na démb démb lañ ko denc ndeysaan nan ndeysaan gars yi ngi jëm mag ñu ngi ñibbi ak suñu paa bi Père Diouf moom it na booy ñes si gindi gaale gis ngeen Sénégal nu mu xatee max Moustapha Niass mamaay dañu bokk benn dëj yàlla yéeme de dañ daje si benn dëj turandoom laay sigil ndigaale booy Moustapha Niasse sigil ndigaale ci sa baay bi fi jóge ci barke weeru koor gi nii ku nekk benn bisimilah rahman rahim coow li dem yàlla na ko yàlla yërëm suuf waa yor kaw del si waat si tëngéej ak Basiru Jomaay Fay dàmbuj ñàkkoon yee xale yi moo tax li leen dal tey dal leen fecc ak forêt bi teg musique bi neex na lool ñun laay foor yëpp fii lañ fi saaga artistes yi moo ne tey artistes yooyu ngeen doon saaga de ngeen i teg di tëgg di dem bu kenn seetaani ji Viviane bu kenn seetaani ji Waly ana mu tey sister Viviane merci beaucoup de ta participation yaa gën Omar Pène yaa ko tene Omar Pène mi ñu way wayam mu xëy def demanti di yuuxu ay ñoom Omar fenkat yooyu nga xam France lañ jóge fii ñëw jaay leen Sénégal papa xë defar seeni o sol seeni chemise nax leen si sa jërëjëf man dëgg def ma sonal de moo taxoon xeex bi yu bëri dañ ko daan faussé ndax tey ñu ngi naan Bassirou yi Mountakha Mountakha Bassirou ñii tey dugg Tëngéej campagne wax waay dañuy xeex dañuy lii dañuy lii mais tey xam nga tey loo leen waroon wax waa Tëngéej yéen looleen leen programme ci def ko tëngeej ban développement structurel ngeen programme pour def ko tëngeej te dégg naa sax ku ci xaw a junj Cheikh Omar ci c'est un grand homme tëngeej Bargny diggante bi soo ko Sococim mu ngi fa foofu soo ko sim nekk ay usine Bata ñu ngi foon usine daal Sénégal Bata bu doon fournir Afrique yëpp te ngéej la nekkoon foofu Bata mu ngi ci sortie ba ata droite Sococim mu ngi fa Sococim lan la def pour Tëngéej yéen état pour lan ngeen ni lekk dërëmu Sococim te doo leen jël dërëmu Sococim def ko ci askan wi te Sococim di poussiéral waa Tëngéej waa Tëngéej yëpp ñuul kukku sew ruj am cancer. Tëngéej Tëngéej léegi taux de cancer dafa yokk de dem leen xool Tëngéej léegi ñu fa goiat dañu bëri ñi fa cancer dañu bëri jën amatul tëngeej Bargny tam yàqu na dañuy am bëñu chocolat comme waa Kaolack te dëkk bari Bargny poussière boobu ñu fay def ban dédommagement ak bañ njëriñ la feeñ ci askan bi wala day gaañ askan bi te bu gaañee askan bi ban hôpital moo fa nekk pour mën a surveiller askan bi mais Sococim lan la def Sénégal Sococim lu mu def Sénégal ñu ñëw Bargny campagne lañ nekk nee leen campagne lañ nekk nekkatuñ ci ay révélation nekkatuñ ci ay du dañu nekk si campagne codé ko wax leen waxi mag ndax man dama yàgg campagne xam nga nag dañ maa yar ci campagne mu màgg si yàgg dem campagne ndax ku nekk campagne sëpp Ablaye Wade Bargny Ablaye Wade defaroon ay bateau yoo xam ne yu ndaw taksi yuy jóge Dakar dem te Tëngéej Bargny yéen ak xaw ma fan ak fan projet bar ñi géej gi lañ yaakaar de ak Tëngéej yëpp géej gi lañ yaakaar ak yéen yëpp géej gi lañ yaakaar waa léegi géej gi ñan ñoo siy bay sénégalais yi am nañ droit bay noonu non napp ci géej gi wala amatuñu droit napp si géej gi benn sénégalais nappatul si géej gi chinois yeeg tubaab yeeg russe yi ñoom ñëpp a séddoo suñu géej gi di ko jëriñoo te fii noonu la fi jën chéré kon ñoom plus que le pétrole y a des bijoux en diamant boo xam ne géeju Sénégal moo koy joxe te li daan gën a génn si jën Bargny la tey usine jën tey waroon na tey nekk tey Bargny yéen tey Pastef war ngeen am tey fulla gu tey na yow Bassirou Diomaye Faye président bassiru tey amal tey fulla gu tey na napp gi usine boo xam ne day njariñ xale Tëngéej nappkatu Bargny yéen fi ñuy nappee yëpp xayaar foofu yëpp Kayar du moins foofu yëpp yéen régime bii di ñëw dañ leen di ñaan géej gee taxoon xale yi dematuñu géej mais léegi xoola foofooy départu dem géej ci lébu yooyu daan nappi ñooy départu dem géej gi pourtant lébu yooyu xam-xam bi ñu am yéen ñi jàng école amu leen ko ku am bac amoo métier te lébu buy nappi am na métier yéen tous les bacheliers vous n'avez rien du tout gat amu leen ko xamu leen dara dara mënu leen ko defal Sénégal tous te mbara ñoos bac bac laa la wax yéen ñiy jàng ba am bag yéen ñi tubaab toog di duul papa ñaama pisini ni ko yéen laay waxal ku si sa baay amul fulla bi ngay nekk élève bu ndaw mu jàngal la jëriñ sa bopp jàngal la doon gaynde sa bopp jàngal la liggéey doom xadar doo changer projet bi ah projet bi détermination moo koy changer ak xat feeling mooy changer dëkk bi ñun man yow kële na le ñoom ñee ñoom ñooy changé Sénégal mais pas ay lamentation ay victimisé wu on s'en fout Sonko nangul négocier du génn seen détermination moo koy génne te campagne bi ba fu muy mujjee balaa moo jeex de force u de gré Macky maa lay wax rek de force u de gré Sonko sera libre pour tëj campagne lañ nekk campagne bi ñu nekk commencé na bëri ay jaxasoo coow lu ne kur ñu naan gaa yaa ngi xeex dañuy fen candidat benn Bokk Yaakaar ah quatrième bas bi moo ko convoqué moo tax tey mu bàyyi élection jóge Tiwaawan dem dugg dakaar pour rejoindre te moom damee xaram ji pël la warta falu di def benn affaire nag boo xam ne foog ma wax ko Il y a plus de 5000 jeunes 5000 5000 5000 yoo xam ne seen papa yi seen yaay yi seen maam ñi ñëpp Sénégal lañ juddoo yaroo Sénégal di jàngi lycée Limamou Laye nekk ay fonctionnaire ci biir dëkk bi yeneen booy yi ay chaîne xale yi dañ ma ne gara man leen waaw ñu ne ma ñun ay patriote la ñeneen waaw waaw waayo père da ngay saaga pëli rek man leen déet saago ma leen pëli est ce que leen seen i ndey ak seen i baay dañuy voté ñu ne ma déet paa yeeg maire yi taluñu voté man leen yéen sénégalais ngeen ñu ne ma waaw man leen ko leen di votel ñu ne ma Bassirou Diomaye Faye ndax loolu Sonko wax ma ne ko lii laa bëggoon dégg kon yéen ay sénégalais ngeen mais ku fi teg affaire xeet dootoo sénégalais fa laa waxeex yéen Amadou Ba juddoo fi kon mënut a nekk sénégalais comme yéen booy guinéen yi eh. yéen ñi juddoo Sénégal sentir seen bopp waa town far si ASC e di dem di Ba du yéen dooleen moom yéen bu leen neexee bokk Sénégal mais moom munu fi bokk ndox juddoo fi métti mett day ñibbi yéen seeni maam sax Sékou Touré da leen dàkkoon ñu ñëw toog kon foog ñu respectante président mooy affaire boo xam dafa sensible te ñaari dëkk yi France ko naftaal Côte d'Ivoire Sénégal Amadou mu ngi wuy ji naan leen mu ngi ñëwaat day ñëw campagne parce que dafa am lu koy ruux dafa am lu nekk ci ginnaawam loolu nekk si ginnaawam nag ñun Sénégal moom la Afrique yëpp xeex réussir ko sauf ñun muy la France bés bu ñu ne gagné na lépp luy France nee naa la les Français si vous faites passer votre putain d'âme d'amour bala votre ambassade là c'est la brûlée e il que des cendres toutes les bases françaises c'est attaqué ça c'est automatique toutes les bases françaises vont disparaître du Sénégal parce qu'on va les enlever de force ou de gré. Les Niger, le peuple du Niger n'est pas plus garçon que nous. La France, ce que tu perdu, il faut négocier avec le peuple pour l'avoir. Pas par la force, ni par des manigances, ni par des manipulations, ni par des combines. Non. Ku votel Amadou Ba France nga votel yeew sa bopp ci bu mu jaam góor jigéen ñi nga votel doomi xaram yi yow sa bopp ci bu mu jaam franc yi nga votel yow sa bopp ci bu mu jaam jaaykatu drogue yi nga jàppal jaay yamba gi nekk Sénégal tuxkate yamba yi toj nañ dëkk bi ñooñu nga votel jaaykatu drogue yi nga votel ku votel Amadou Ba sa diine matatul matatul ngay julli ndax ab sàcc nga votel te kuy sàcc ñuy tas yaakaaram dañu war dagg nday loxom procureur Bassirou Gueye commissaire Assane Ndoye ab sàcc ngeen convoqué ab doome xaram ngeen convoqué ab imposteur ngeen convoqué ab lâche pire le premier traitre de la nation yéen nag vous êtes des sénégalais et de hauts fonctionnaires man dëgg moo ma sonal ndayem Amadou Ba du fi jàllee ndayem président quel que soit le prix à payer ndax sàcc la doome karam la sàcc la ñëw ci ministre de l'intérieur Matar Cissé ñii ñoo nekkoon ay cadre ci gouvernement Abdou Cissé doon financé Macky Sall bi ñu ko dàqee 2009 Matar Cissé mii ak Amadou Ba. Matar Cissé ak Amadou Ba mii ñoo daan financé tey Macky Sall mii Matar Cissé ses intérêts sont extrêmement menacés Amadou Ba dàq ko sàcc de Matar Cissé lu muy sàcc. ma ne la sàcc de la république mooy ñoom Matar Cissé ñëwee moo tax su ma gisee gars yi naan Matar Cissé du def Matar Cissé nu mu nekkee nday milliardaire. Matar Cissé naka la nekkee milliardaire wax leen ma ko yéen yéen kii di sàcc xaraa Mata Ndiaye sàcc suñu Senelec def ay affaire am kii di sàcc xaraa Mata Ndiaye ñu jox ko ministère de l' intérieur créer un gouvernement de combat qui doit combattre avec le peuple pour se imposer le système ngeen ngeen naan lan Matar Cissé la. xam ne élection yi mënee déroulé wu c' est l' état profond qui va gérer les élections pas ce ministre de l' intérieur là c' est un voleur mook Amadou yam ay sàcc xaraamata njaay lañ yàgg leen xama tax ma ñemee wax li ma wax ay sàcc xaraamata njaay lañ Matar Cissé Amadou Ba tu kiif te jubootuñu ndax bu dañ ko ne démissionnel mu bañ ñoom ñëpp ay jaaykatu drogue lañ ñoom ñi ñëpp ay jaaykatu drogue lañ xam Sénégal laa def naan ma Matar Cissé ñi Matar Cissé di jaaykatu drogue comme Amadou Ba Matar Cissé di doomu Amadou Ba ñoom ñaar ni defandoo seen i deal yëpp teg ak Macky Sall seen i deal yëpp ren di Ablaye du haute trahison mais moom la Amadou Ba Macky Amadou Ba li mu la defaloon trahir Ablaye Wade def haute trahison moom la la defaat ak France nii ñëw trahir la moo tax boo ko jëkk rayal ndayam Amadou Ba moom man xoola ñu ray ndayam sax jël keneen teg ko ñu dem campagne moo ma gënal mais pas Amadou Ba tout sauf lui nekk xas sa ndeyam depuis bi campagne bi commencé lan la am comme ba pare France bëgguñu xoj par force ne moom daal foog seen guinéen bi jóge Guinée Conakry moo fi toog par force du fi amee fii Sénégal la taxaay Basiru Basiru yi Muntaxaa point fii Jolof lañu nekk l'heure du verseau lañ nekk dañuy waxante ay dëkk mu leer nañ weer koor laa nekk yàgg naa leen ko wax amul xam ni ci dara lu ma yëg laay wax Pastef dama leen di ñaax di leen ñaaxaat yéen ñoom Dame Mbodj yéen ñoo ñu nekk ci camion bi di wax ñëpp kenn du politicien moo tax c'est normal ni ngeen di waxee c'est normal mais xoolal dëkk boo leen demati xool leen fiy metti par rapport au projet ngeen def collation bi vous fet une petite collation ngeen jël projet bi xool ne Bargny lii moo fi manqué Diamniadio Thiès lii moo fi manqué mbuur soo leen fekkee jee méttal ngeen xam mbuur yan problème la am ngeen xam ne mbuur foog ngeen tëj cagatu gi pour ngeen tëj cagatu gi suuf soosu ngeen jox tubaab gi foog ngeen jël ko gis nga c'est des codes c'est des campagne lañ nekk fal nekkuñu ci ay foo faux oh, eh, eh, dañuy libérer Bassirou président ku fal benn président nekk ñu ci loolu am ñaari président on n'est pas sur ça élection lañ nag foog ngeen wax mag ñi lu ñu mën dégg gis nga ñu toog seen kër di seetaan sont plus dangereux que ñuy dem di voter sont plus dangereux que ñuy génn di leen topp man ñuy génn di leen topp yéen la ñu gëm mais léegi et les principaux votants ils vont faire comme ils vont faire comment il faut qu'on se respecte dama leen di yokk nag ndax dara laay demee man dama leen di yokk je m'en fous de votre campagne xam nga lu ma gis Bassirou Diomaye Faye taxaw leen bàyyi foo beeg ree bi commencé nag teg affaire yi ci code ak bàyyi ñoom Cheikh Bara Ndiaye voilà ñoom ngeen di bàyyi ak public bi c'est que foog ngeen doon ay nandite prisonniers politiques yi ak ñoom Cheikh Bara Ndiaye Mara Niass ngeen di bàyyi ak booy yi ñu naan leen waay waay Sonko mooy lii kii mooy lii waaw ñooñu c'est pour les petits kooku da ngeen koy bàyyil gars yi mais yéen boo la ñëwatee di wax yéen ñoom dàmbooj yéen Guy Marius Sagna yéen ñëpp prenez-vous comme des adultes prenez-vous comme des hommes capables prenez-vous comme des hommes intègres wax leen booy yi programme bi lan la de quoi est composée la présidence de Bassirou Diomaye fay Comment il va gouverner et qui réaliser Et comment on va faire pour réaliser les projets du président Bassirou Diomaye fay man fa laa tolloo ak yéen tollootuma ci ay diw day def lii maki daw na fii coup d'état bi nii lay waajal métti métti ñoom général Tine ngi fi lu leen neexul du fi am lu neexul peuple moment yi ñoom général Tine ngi fi teg nañ seen veto am nañ lu ñu waxante sama yoon nekku ci xam nga ci lu ma nekk forcé caravane programme campagne gagné ou kenn du wax lépp basuma basuma mbari su ko nonk abidje Iba Famaale Dia maa ci journal de la campagne